waaw dañoo waroon a organiser conférence de presse biir fac bi mais dañu koo tere loolu tax defuñu ko ci biir fac bi ñu mujj def point de presse léegi loolu li ko waraloon mooy maanaam dañoo seetlu ndaw ñu euh, am diplôme ci ci droit maanaam yoon dañoo am problème pour am xëy am problème d'insertion parce que loolu lu ko waral mooy magistrat doyut avocat doyut huissier doyut notaire doyut Sénégal xam ne ni 16 millions ñu am ñu am moins de 600 magistrats alors que war nañu am minimum 1000 magistrats war nañu am minimum 2500 avocats am minimum des centaines d'huissiers de notaire yoo xam ne tey dina mën a euh, euh, liggéey bi gën a yomb mais aussi recrutement yi nga xam ne dañ koy annonce ci fonction publique booba léegi ça fait trois ans nit ñi di ko xaar tey mënuñu ko gis te recrutement yi su ñëwee ñu jël ñoom jël def ko par parloo jël seen i nit ak seen i mbokk te ba léegi ni da ngay toog rek jig-jig nit ñi dugal ko alors que liste yooy yooyu mu yëpp mu bokk ci ne dañ koy ñaawlu mais ministre Macky Sall yi ñun ñoo ñu sonal ak directeurs yi parce que ministère ya lu leen neex lañ def ministre la justice lu ko neex lay def day jël ay nit yoo xam ne concours huissier ñu def concours jàlluñu mu jël leen defal leen nomination au même moment am na ñoo xam ne jàlloon nañ concours euh, mu defal leen au même moment am ñu jàlloon concours soxla nomination mu lànk bañ leen ko jox muy huissier muy mu doon ay ay li tubaab yoon pratique yoo xam ne dafa ñaaw ñu koy ñaawlu bés bu set mais nag loolu lépp li ko war état du Sénégal mooy Sénégal parce que profession libérale tey état du Sénégal fayul euh, organiser profession libérale donc lañ ko laaj mais nangu ko def parce que dañuy nekk l' état l' état est en complicité avec les lobbies pour interdire euh, profession libérale yoo xam ne ndaw yi war nañu ci war nañu ci mën a suqandiku dimbale seen seeni mbokk dimbale seen waajur dimbale Sénégal mais dañ ko jël verrouillé tere leen. dañoo tàmm lu ñu wax dañuy wax ñun duñ gis dara parce que ñun tamit xam nga loo gisul mënoo ci wax wax ju sori ñun booba léegi ba ñu waxee ba ñu ngi toog di déglu mais dégguñu leen gisuñu leen ah ñu ngi yaakaar ni rek lañ waxoon dañ ko jëfee ba mu mat sëkk ñun loolu da lañ ci mën a wax parce que loolu loolu gisu tegoo ci loxo mënu mënoo ci wax comme gisuñu ko teguñu suñu loxo mënuñu ci wax leen loolu toog di xaar ñun daal pare nañ ñu ngi xaar doy mais ça ne saurait suffire waaw DER war a parce que mënuñ jël ay milliards yu dul ko ci biir DER te kenn xamul fu xaalis bi dugg te d'ailleurs sax ñun danañ organiser sitting DER dootu que DER liñ fi fi nekkee il ñun danañ ci wax danañ ci jëf parce que am ko nangoo di ñu pasar pasare après au final jeunes yi nekk fi di manifester di dugg ci géej gi ak yooyu noonu yooyu doo dakk dootul kon ni te loolu danañ ko fi dindi ñun danañ ko fi dindi